wax na ba pare xaw xamul lu xaw xamul monsieur monsieur Niang buñ buñ la déggee li nga wax nii gis nañ keroog dédicace papale bi yaa nga fa woon euh, ndax xëy na yeneen relation yi nga am mais ñu ngi dégg Nafi Ngom Keïta ak nu mu mel que loolu tamit taxul mu yaakaar ne yéen a nekk ci ginnaaw boobu léef euh, euh, dama ne Nafi Ngom Keïta loolu ko wax bi ko ma wax leen leen ñaari yi ñu ko nommé yëpp yàlla may taw wax parce que wut wutatu woon ci dara hmm. démissionné naa bu yàgg nekk na juróom-ñetti at inspection générale d'État Wade proposé ko def ko vérificateur général chef bañ na juróom weer bokk yee xarit yi di ci topp bëkk kii ba mu nangu. Mhm. yàlla xam na ko bu mu nekkee vérificateur juróom-ñaari at la ko waree ba mu desee tuuti mag ki ñëw nekk moom ne da koo bëgg def of nag walla yi daf bañ yàlla miin texoon na ko pendant quatre mois mbokk yeeg kii yeeg. mu nangu ñëw bu bon léegi man euh, président day jël douze membres. Mhm. ñi ci des ñi muy liggéeyal moo leen di nome waxtaan naa ku ma xam tudd nañ sama tur ah kooku de pourtant boo fekkee ne mën ngaa liggéey moom nanga nanga ah bon de nan noonu la demee xamuma xamuma ko benn waay rek la waxtaan mu tudd sama tur. Mhm. mu ñëw jël ma am ci man confiance liggéey dama ak moom fukki fukki weer ak juróom man sexaluma suukar nafi jaraluma naa feq man xam naa naa jàpp a jàkkaarlook borom mhm. gis nga sénégalais ameel nañu ak ndaw soosu surtout yéen presse bii amee ngeen ko ak ah, mbette presse bi kay dañuy laajte rek waaw wa de yéen waxu presse yéen presse de façon waxuma yéen ah, de façon générale dégg nga li ma la wax mënul noonu nekk suñu gannaaw parce que mais li ma leen wax déggu ko xanaa dégg nañ li nga wax man sama rôle mooy maa nga woon ci comité de lecture hmm. maa ngi Abdallah Dione te ci suba dañu dégg mu wax ne rapport bi nga xam ne euh, euh, livre bu Pape Alé Niang bi mooy li nekkoon ci rapport Nafi Ngom Keïta ci ay loxoom dem ci Pape Alé et que enquête boobu tubaab moo ko def nan nga mën a hmm. comprendre loolu Sénégal ak nu ñu amee ay ressources humaines doomu réew bu France di def rapport ci loo xamante ne sunu doxalinu réew la bu ma la waxee ni mu demee nga xam ne ñu nu jiite daanaka duñu dara parce que kii ko wax ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République ancien mm-hmm. premier ministre mm-hmm. moo wax lii de li nga ne li nga ne jóge na ci loxo yi rapport ba nekkul ci loxo yi na fii ngoo ngi koy tare loolu rapport moo ngi ca procureur mm-hmm. léegi mi ngi ci site yi ku dem gis ko wala c'est dans les sites euh, li mu wax mu ne kii ba dara nekku ca mi ngi ko tuddee euh, euh, nangam hollandais. fromage fromage hollandais. qui comporte plus de tout que de gruyère xaw ma. Mm-hmm. man kaw kaw laa sax xaw ma luy. Euh, kii hollandais nee na maam moom lay wax. Mm-hmm. day jaayu njub tudd ko nag day jaayu njub te kiiwut te rapport bi dañoo jërib tubaab ca France fay ko xaalis moo ko defar. ba yëfikee mu daw ñibbi dellu France. mu démissionné. mu démissionné mu dellu. xam ngeen ki di tudd des rapports nu mu tudd. Pape Ibra Kébé mi ngi dëkk tuubaa gii. këram a ngi fii ci boori Mbuur ak fanaan naa këram ñeenti yoon ak yaayam ak i sëram kër gu mag gaa nga Touba. dafa liggéey lu yàgg France di boroom xam-xam. liggéey na EDF e liggéey na e, fi ñuy kii ndox mi nangam nangam ilat dafay borom xam-xam ensuite mu dem di jàngale euh, boori Clermont-Ferrand professeur d'économie di jàngale enquête di jàngale nangam di il est il est auditeur expert de talent. Mm-hmm. ba mun na fi moom di wuti nitam ñeenti ko ñu dem pour convaincre ko renoncé na daanaka ci genn wàllu salaire am soog a ñëw moo jiite mbir ma ba ñu demee di laajte. foofu it mu ngeen mayoo ci tuuti. allez-y. de président de la ne euh, respecté wu ñu euh, rapport pré compte qu'on euh, fait pas il raconte des histoires. Mm-hmm. loolu amul loi bi xam nga inspection générale de bu ñu lëkkee fa dañu lay jox rapport ba ne loo ci loi bi teg of nag loolu amu ca xam nga ñi commission d'enquête nu ñëwee bu ñu ñëw première question yow diw de nee nañ def nga nangam def nga nangam def nga nangam. loo ci xalaat nga tontu yooyu bind de. Mm-hmm. ñu xool liir na yaa d'accord nga nga ni waaw ñu njaari ca ñaari question ñetti question ñeent ba lépp man bu àggee dañ la ko posé waat sax ne neen ba lépp jeex ñu jox la kayit na la jàngal nga jàngal nga ni d'accord nga mm-hmm. nga bind sa tur ak date signé muy procès verbal procès verbal yooyu la ñu boole mm-hmm. ñu naan amul rapport contradictoire ak le président de raconte des histoires ak ñi koy wax. mais euh, bu ci Cheikh Oumar Anne ak ñi mu àndal ñoom dañoo jàpp ni dañ koo singali ndax nee moom bind na tontu waaye tontu bi dafa mel dañ ko nëpp nëppal. waaye lu muy tontu. ci ko jiñ. liñ ko. ci luñ ko jiñ ni moo ko. amul la loi ne permet moo tontu na ba pare. dafa dem ba nga xam ni mbir maa ngay bëgg a fi loxo. nga dem nañ ba chef de mission bi. ne président ne ah nun de gis nañ li ñu li ñu li ñu gis jéggi na dayo raw na fuuf lañ noxoon mu ne leen yem leen ci liñ dénoncé bu nu ko passé ma def deuxième ordre de mission ngeen dellu foofa la mbir ma yàqoo foofa la ñu commencé nag maa régisat di di ko indi ma ma ni Cheikhaan da doon téléphoné Pape Ibra Kébé di ko saaga xanaa nag maa xamul maa ko wax man Abdoulaye Diallo ministre de l'intérieur sama xarit la nangam am na loolu mu wax sax ñemewu ma ko wax yemu ca xam nga bu mu waxee rek ñuy wax la daf koo bind lettre lu mu ko yëkkul amul nee na ko sax da nga bañ tukkuleer yi yu garaaw yooyu nan nañ koy waxee nun tukk fi Sénégal tukkuleer wala bambara ñëpp benn la nee na ko sax da ngaa bañ tukkuleer yi bind. xanaa xanaa biir of nag amul amul loo xamante ne maanaam maanaam daan woo xamante ne. mën nañ ko maanaam ci li ngay wax laay bëgg a damay àggale damay àggale ayca ayca ba ñoo ñëwee xaw nañoo kii bëgg tontu tontu bu kii na fi leen déet def leen une réponse technique de daf nuy daf nuy kii ñu tontu ko tontu rafet lañu lañu lañu jaar ak moom fépp tontu dem ba yàgg ñu convoqué ñëwatul lànk te nag li ko loolu ni mu garawee ci nag banque bu mu dem tey lu mu la laaj da ko ko jox kër gu mu fëgg da ko yóbbul par force Cheikh ah, lànk ne du dem ñeneen ñi waroo mu ne ku dem ku dem ma dàq la am na ca kenn ko dem sax da koo dàq euh, présidente bi bind président de la république le président n'a pas levé le plus petit doigt topp ci kay saaga kee bàyyi liggéeyam di un un enseignant de haut niveau ñëw pour liggéeyalum réewam ñu ko cay saa ndey ak lu ne ñu def ko ci dara mujj ci mu xam ne mii réew kat réewum caaxaan la mu ñibbi. ko ko dégg nga léegi kooka dañ lay wax ne français parce que yàgg na fa am na am na am na nationalité française hmm. Senghor ñaata ñaata la ñu jiite ñaata am fii nationalité française ak américaine Karim nationalité la lan moo tax of nag amul ay maanaam barrière fu ñu tëj foo xamante ne du ñu am sañ-sañu muy corps de contrôle bu ñu defee seen rapport ba pare duñu leen mën a ŋàññi comme kàddu yu ñagas yi nga wax ko tekki seen kaw wala sax dem ba di leen saaga ndax am sañ-sañ boobu loi bi prévoir léegi Nafi ngoom Keita tegu ko nawle waxuma nawle nawle waaye. Mhm. taw tegu ko nawle. Mhm. waaye bu ko tegoon nawle bu ko porté woon plainte wallaay dana sonn. Mhm. moom moom an plainte bi muy wax bu ko Nafi Nafi Ngom porté woon plainte dana rëccu li mu wax. mais est-ce que yëf yi kon dina mujj fenn bu fekkee ñi ngi ci euh, tuumal euh, njiitu réew mi nga xam ne moom moo yore kàddu bu mujj bi moom moo leen di làkk également xam ñu ni que rapport yi amul benn valeur juridique. mais am na valeur juridique kenn tuumaalu ko moo ko def. Mhm. mooy làq. valeur juridique c'est-à-dire ñoom seen enquête la ñuy def jébbal rapport bi mais du ñoom ñooy topp ñi ñu ci épinglé. Mhm. mais euh, topp kooku dafa am dafa am ñoo xam ne mooy seen liggéey. voilà c'est ce que je disais. procureur de la République mhm. yi loolu seen liggéey. <coughs> loi bi fa mu yemalee wax na bu ngeen demee ba li ngeen kii lu ki nu ki nu mu tuddati na ba ngeen def seenu dossier. déposer leen ko entre les mains du procureur de la République. Mhm. c'est bëgg a wax mooy est-ce que mënuñu yokk prérogative maanaam corps de contrôle ba ñu dem fu gën a sori mooy li ma la doon wax sànq ba ñu dem fu gën a sori que yamala rek jox procureur bu ko neexee ñu daal di. activer bu ko neexee ñu bañ a. activer neewoon na bu ma ñëwee. Euh, euh, kuréel yooyu di di di di kii nii. danaa ah. leen yokk seen doole bu baax a baax a baax. Mhm. loolu de waxoon na ko. loolu la waaye fi mu ne di ñu ngi ci suuf. Mm. Euh, au lieu que ñu yokk loola. waaye na yoon def liggéey na yoon def liggéey mu jeex. Mm. au dañuy yokk loi mayul président of nag mu dem ci procureur naan ko nag kenn mayu ko kenn. Mm-hmm. loi mayu ko kenn. benn instruction la mën a am mu jóge ci